أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله نستعينه ونعوذ به من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد عبد الله ورسوله صدق حين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ونعوذ بالله من النار أيها الأحبة وهذه حلقة جديدة من روضة المصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه توجه المسلم والمسلمة إلى الفضائل التي يتم بها الدين وتصلح بها الدنيا والآخرة بقي ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ànd ak yéen ci tomb bu bees tomb boo xam ne ñu ngi ko tuddee dër ci dëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walla ci jardin ci jardin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu bëgg mooy ànd ak yéen ànd ak yéen ci doxantu boo xam ne ñun ak yéen ñoo koy bokk ànd def sunu doxantu bi nag fan lañu bëgg mu jëmale ñu fan lañuy jublu ci yoon wi ñu jëm mooy ñu ngi jëm ci jardin wu yonent bi ci dëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toolam yéen soppe yi yéen mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw kaay leen ñu ànd doxant jëm ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toolu Mustafa bu ñu ànd ak yéen ba doxantu ba yegsi ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan lañ fa fekk keroog mu monte garde sahaaba bu tudd abu hurayra radiallahu anhu wa ardaahu abu hurayra ndax noonu la tuddoon boroom xam-xam yi yal na yàlla yërëm leen yokk seen leer werante nañ ci tutam ci turam moom sahaaba bu màgg boobu ba wax ci lu tolloog fanweeri wax yemuñ sax ci turam waaye même turu baayam sax wuute am na ci waaye li wér te dëggu mooy abu hurayra moom mu ngi tuddoon abdurahman ibnu saxra dawsi turam dëgg abdurahman la woon lan moo ko indil ñu tuddee ko abu hurayra mu nekk aw dakkantalam li annahu aada min almara bi hiratin yaxmiluha abu hurayra génn na këram jëm ci àll ba delsi nit ñi gis ko ne mu ngi yore ab muus muus ma fu mu jëm yóbbu ko ndax di ko toppatoo ndax am yërmande ci muus ma looloo tax ñu tuddee ko abu hurayra bàyyi muus mi moom abu hurayra kàngam la woon boroom xam-xam bu mag la woon daanaka mën nga ne saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan àndal abu hurayra ci raw lu tax ndax mokkaloon na 5374 xadis yonent sallallahu alayhi wa sallam lu tax loolu yonent bi moo ko ñaanaloon moom dafa bokk dugg na ci lislaam moom abu hurayra ci atum juróom-ñaareel waaye bokk na ci li tax mu raw saxaaba yi mooy ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dal ci kawam taqoo gi mu taqoo nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tax yonent bi ñaanal ko mu mën a mokkal mu mën a wattu mu mën a garde lépp loo xam ne jëlee na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax mu mokkal ci ay xadiis lu tolloog juróomi téeméer ak ñett ak juróom-ñaar fukk ak ñeent muy 5374 xadiis moom abu hurayra bokkoon na ci ñoñi suffa waaye moom ci yaram ak ragal yàllaam ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar jàppoon na ko bu daan génn këram sax day ñëw ba ci buntu kër gi daal di tàggu yaayam bu yem ci tàggu ko waaye dana ñaanal yaay ji ne ko rahimakallahu kama rabbaytana rahimakillah yal na la yàlla yërëm yow yaay kama rabbaytani sagira comme ni nga ma yaree ma nekk xale yaay ji daal di koy delloo ñaan ne ko rahimakallahu kama rabbaytani kabira moom abu hurayra jàngal na lu tolloog juróom ñetti fukki saxaaba ak taabiin jàngal na leen moom abu hurayra radiyallahu anhu wa ardah saxaaba yu bari jàngal na leen waaye taabiin yu bari jàngal na leen faatu na jaatum juróom fukk ak ñaar ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom abu hurayra moo ñuy nettali moo ñu jox fleur bi ñu jële tey ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bouquet càbb bi ñu witte tey ci tool bi abu hurayra moo nu ko nettali moo nu ko jox moom abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na kullu ummati yadxuluuna aljanna illa man aba qaalu ya rasul allah wa man yaba qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba abu hurayra nee na tey bukke càbb bi ma leen di wittal ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xeet wi yépp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ allahu akbar hunaka unaasun yudaawna li duxuli aljanna fa yarfudoon ndeke mbokk yi am na fi ay nit ñoo xam ne soo leen ne kaay leen dugg aljanna nga leen di woo dañuy lànk la hawla wala quwata illa billah même bu ñu leen doon gaaral aljanna naan leen mu ngi nii fa yamtaniun dañuy bañ alekunu zalik est-ce que gëm ngeen loolu ne am na laqad ajiba saxaaba saxaaba yi sax bi yonent bi waxee wax ji dañoo yéemu radiyallahu anhum yal na yàlla kontaan ci ñoom gërëm leen ñoom saxaaba yi keroog ba leen yonent bi ne am na fi doomu aadama yoo xam ne bu ñu leen waxee ñëw leen dugg aljanna dañuy lànk bu ñu leen gaarale aljanna dañuy bañ saxaaba yi dañoo waaru comme yow ni nga waaroo yow mi dégg wax ji allahu akbar wallahi doy na waar kaay dugg aljanna mu lànk ñu laaj yonent bi waaye yonent loolu lu mu mun nekkee yonent loolu nu mu mën a nekkee naka la ñuy waxee nit kaay dugg aljanna mu lànk yonent bi daal di koy leeral ne ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bu ñu bi dugg aljanna man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba man muhammad man la yàlla yónni man la yàlla wax ne atiu llah wa atiu rasul man la yàlla wax ne ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasula man la yàlla wax ne wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan baida man la yàlla wax lii lépp moo tax mu ne ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa lànk bañ a dugg aljanna mbokk yi yonent yàlla muhammad mooy ki yàlla ne topp leen yàlla topp yonentam moom la moom la ki yàlla wax ne bu leen jiitu yàlla ak yonentam waaye nekk leen ci ginnaawam moom la yàlla wax ne wa in tutii uuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub moom la yàlla wax ne falyaxzari allazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim mooy tandiku leen wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko defee yàlla teg leen fitna ci àdduna alaxira yàlla lakk leen kon ndeke kéemtaan lu mun a nekk ci xadis bi la ndax yonent bi la yàlla wax ne topp leen ko moom yàlla moom yàlla ak yonentam amul keneen atiu llah wa atiu rasul topp leen yàlla topp yonent moo tax yonent bi ne ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna moo tax yàlla ne wa man yaasi llaha wa rasulahu képp ku mooy yàlla ak yonentam bañ leen a topp yàlla ne dinaa la dugal saxara mbokk yi abu hurayra wittal nañu ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ju doy waar wax ju yéeme wax ju jara bind ak or def ko ci sa buntu néeg def ko ci sa kawlal saa yoo xëyee di ci teg sa bët sooy tëdd sa bët di ko mujjee gis mooy lan ku ma topp man yonent dugg aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna xoolal tey jullit yi ñii ñu topp ku nekk am nga koy roy ba ci mbaxna yi ba ci yëre yi ku nekk am nga fans ñan ñooy fansu muhammad mbokk yi ndax bëgg ngeen a bokk ci ñi fans yonent yàlla muhammad ndax bëgg ngeen bokk ci soppe yonent yàlla muhammad yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ngeen ko amee fenn lu dul roy ko moom yonent bi lu dul topp ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi hadis bii abu hurayra wittal ñu ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wittal ñu ci jardin bi ñeenti mbir lañ ciy jële bu njëkk bi mooy wujubu taatu rasul topp yonent bi dafa war saa yoo jàngee wujub mooy loo xam ne fal force farata la ci yow da nga ko war def nekkul lu ñu sopp nekkul lu ñu bëgg nekkul loo xam ne su la déedéet wujub mooy lu war loo xam ne bu ñàkkee ci yow rek sa diina du baax kon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war fii ma amara ci lépp loo xam ne mu ngi koy digale lu muy digale da nga war a def lu muy tere nga bàyyi loolu mooy tekk ci yow ne gëm nga ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah saa yoo toppee yonent bi ci lim lay wax nga topp yonent bi ci lim lay tere nga bàyyi ko yow gëm nga ne muhammad mooy yonent yàlla bi waaye su fekkente ne muhammad su waxee doo def bu teree doo bàyyi xoolaatal sa bopp est-ce que li ngay wax ci yow ne muhammad topp nga ko ndax dëgg la ñaareel bi mooy taatu rasul sababun li duxuli aljanna wa maasiyatuhu sababun li duxuli naar topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabab la ci luy dugal nit aljanna waaye mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabab la ci luy yóbbu nit saxara allahu akbar mbokk yi yonent bi dong ngay mooy dugg saxara amul keneen waaw moo tax imaam ahmad ne ida qaala allahu wa rasuluhu fa bil ayni wa ras yal na yàlla yërëm malik te daan wax kullul kalaami yuxas way rodd illa sahibu haza al qabr wax ku nekk danañ jël di delloo ba mu des waxu borom rawda bi borom barrière or bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi maa xalaqa al ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin bayna al wara muhammad al habib al muxtaar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam topp ko day tax nit dugg aljanna ñàkk ko topp day tax nit dugg safara kon mbokk yi yéen mbokki jullit yi fan ngeen toll fan lañ toll ci di topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy di ko bàkk di ko kañ bëgg ko ci sunu biir xol yi fan lañ ci toll ndax bëgg ko topp ko day tax ñu dugg aljanna ñàkk ko topp ñàkk koo roy ñàkk koo bëgg day tax doomu aadama dugal dugg safara kon yàlla leeral nañu sunu mbir yàlla wax nañu lépp loo xam ne ku ko def dugg aljanna waaye yàlla wax nañu lépp loo xam ne yoon woo xam ne ku ko sóobu dugg safara yàlla leeral nañu ko ñetteel bi mbokk yi ci li ñuy jëlee ci xadis bi mooy duxulul janna wa duxulin naar murattab ala amalil abd fi hadihi dunia li dugal nit aljanna wala mu koy dugal safara yàlla da koo tënk laxas ko def ko ci jëfi jaam bi ci àddina bii muy dund li koy dugal aljanna fii la nekk waaye li koy dugal safara fii la fii la koy defee nit du dem ba aljana dafa def dafa jëf jëf ji koy dugal aljanna nit du dem ba safara dafa jëf jëf ji koy dugal safara déedéet jëf ji lay dugal aljanna fi nga koy defee waaye jëf ji lay dugal safara fi nga koy defee kon nañu xool suñu jëf yi nañu xool suñu jëf yi yaa ayuha alladina amanu yaa ayuha alladina amanu yàlla dafa woo ñi gëm lan la leen di doyee mu ne xool leen bu baax li ngeen di def xool leen seen jëf balaa ngeen di jëf jëf joo xam ne ku ko def jëm safara ab jullit bu gëm yàlla bu bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam day contrôler ay jëfam guddi ak bëccëg tàngaay ak seddaay lëndëm ak leer mu xool lépp loo xam ne daf koy def su fekkee lu baax la mu gaawtu def bu fekkee safaan la mu moytandiku balaa muy jëm safara ndax yàlla tabaraka wa taala li muy wax wax na ko ba pare li muy jëf jëf na ko ba pare li mu santaane leer na doomu aadama bu ko defee dugg aljanna su ko doomu aadama lànkee bañ a def day dugg safara borom bi ne yaa ayuha alladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad ee yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla waaye xool leen lépp lu ngeen di def ngir ëllëg wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad ee yow doomu aadama xoolal looy def ëllëg xoolal topp ngay topp yonent bi xoolal ñàkk ko topp ëllëg fu mu la jëmee xoolal topp gi nga koy topp fu mu lay dugal kon mbokk yi yàlla wàccoo na ak ñun wax nañu ne li ñuy dugal aljanna fii lañ koy defee li ñuy dugal safara fii lañ koy defee fii ci àddina bi ñu nekk ñeenteel li ñuy jëlee ci xadis bi mooy al imtina an duxulil janna yataxaqaq yataxaqaq bi ahdi amrayni terew sa bopp lànk ne man duma dugg aljanna benn la ci ñaari mbir yi al imtina an qubuli daawati nabi sallallahu alayhi wa sallam kaamilan ñàkka nangu woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu woote yépp ne lii nañ ko def wala nañ ko wax wala nañ ko jëf nga lànk bañ koo wax wala bañ koo jëf wala bañ koo def su boobaa da ngay dugg safara ñette ñaareel adamul imtisaali li baadil amri nabi ñàkk ñàkk dëppoo ñàkk nangu ci lenn ci ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu digle wala yi mu tere ñaari mbir yi lànk bañ a nangu woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lànk bañ a def lenn ci santaaneem wala bàyyi tereem ay mbir la yoo xam ne mbokk yi dafay dugal nit safara soo defee li lay yonent bi indil sant la ko soo dee da ngay dugg aljanna waaye boo lànkee def li la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tere boo faatoo da ngay dugg safara kon doomu ndey ñun ak yéen ñoo àndoon doxantu ñëw ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fekk fa sahaaba wu tudd abu hurayra abu hurayra wittal ñu ci toolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bouquet benn fleur kenn ku nekk mu jox la fleur bi nga la waaye utal kopp bu set utal kopp bu laab dugal ci cab bi abu hurayra la jox la kado jële ko ci toolu yonent bi soo ko ci defee tiimale ko sa bopp lal fleur bi di la xeeñ nga jël fleur bi di ko dund guddi ak bëccëg soo génnee soo duggee gis ko sooy génn mu mujj ci yow saa yu xëyee bala ngay génn gis ko soo duggaate ci kër gi fekk ko fi nga boole fleur bi ci sa dund ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu